axusu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim seen sekkarab tey day wax ci li nga xamante ne mooy wàllum alal astaxfirullah xam nag nga ko mën a ci weer wi weer wa ca dellu weer wu dellu si mu def la millionnaire secret bu foofu lañ koy jëmale tey bu soobee yàlla allah nii ñu leen koy bëgg waxe ngeen ko defee ba secret bi mag ci 41 jours nga koy liggéey weer wa ci topp yàlla daf lay def millionnaire balaa loolu lii ngeen jàkkaar lool moo lay muusal ci cat cat nag wax naa leen du dañ ci nit définitivement waaye mën nga koo sangoo diggante diirub six mois cat du la fi jàpp ba du la fi yàqal bu six mois yi mataatee nga sangoowaat ko cat du la yàqal mukk bii mooy nga ngelaw seetaane bi ak rab yaakaar naa bii moom ñi ko xam bari na moom moom ñett fan nga koy suuroo am résultat incha allah bii ci wàllu alal lay dox muy lal mos ñi jaay te bëgg bayra place wala bayra njaay wala yow sa jëm sa nga bëgg bayra ba bëgg ala xaaliss li da ci ay lool gaaw ci lool sha allah bi nak moy li nga xamé dess des moy goor day dëgër mom mom ci kattan rek lay dox bur na ci yo xamné dess des na boo ci bëggé gëna am loolé da ngay fexé ba dem ci cabinet bi insha allah bi moy jigéen ñi mënta am dom li mooy fas gi bi mom dañ la koy jox ba nga am dom ba té ba paré di soo fay moom am na ci yaakaar bii mooy ndoom bëgg wërsëg wàllu wërsëg ñu mënta am dara feex leen ba am ndoom bëgg yi su ko defee secret bi nii dañ koy liggéey astaghfirullah dañ koy liggéey dañ koy tarbiyewu diirub 41 jours bis bu set nga onze mille cent onze onze mille cent onze moom nga koy werd onze mille cent onze ba mu mat 41 jours incha allah weer wi nga ko liggéeyee ba mu jeex weer ci topp suñu borom dina la tàggatal alal ju bari ay million nag laa wax ay téeméeri ju nekk ñaar fukki ju nekk yooyu ay million mu dugg ci sa loxo fexe leen